l'actu sur King FM. Mesdames, Messieurs, bonjour. Voici les brèves que nous démarrons avec euh, Kémy Seba qui accuse l'État du Sénégal. L'activiste franco-béninois se dit victime d'actes de violence durant sa détention à l'aéroport international Blaise Diagne de Dias. C'est dans un live Facebook qu'il s'est prononcé. Le président Macky Sall et son ministre de l'Intérieur en ont pris pour leur grade. Près de trois mois après son arrestation, la famille de Guy Marissagna brise le silence. Son père, ses frères et amis trouvés en Casamas parlent de détention arbitraire. Les habitants du village natal de l'activiste n'écartent pas de se faire entendre prochainement. Le carême débute aujourd'hui, mercredi décembre. C'est donc parti pour 40 jours d'abstinence et de piété avec un changement de comportement chez beaucoup de fidèles. Le carême est la période de 40 jours qui précède le jour de Pâques. Sport, suite des huitièmes de finale allée de la Ligue européenne des champions. Le Real Madrid va affronter Manchester City et Lyon Juventus de Turin. Hier, le Bayern Munich est allé battre Chelsea 3 buts à 0 et Naples FC Barcelone ont fait un match nul, un but partout. Pour la musique du jour, avec le carême qui démarre aujourd'hui, nous vous proposons Fulgence Gaku dans Jambar, un titre sorti le 20 mai 2016. Écoutons. La version Olaf de ces brèves, c'est dans un instant. Yéen de ngi King FM 99.4. xibaar yi tënk lay doon dañ koy tàmbalee kon ak Kémi Seba mi nga xam si kon daal di nay accusé gouvernement bu Sénégal activiste franco béninois bi nag dafa daal di xamle ni ay ñaawteef dañ ko ko daal di def keroog ban ko tegee loxo ca aéroport international Blaise Diagne ba nekk ca Diass mbir mu ni mel nag mi ngi ko xamee ci ab live uh, bu mu def jaarale ko ci uh, Facebook bi uh, mu daal di ci kon joxar bi njiitu réew mi ba ci kon ki la di jëwriñ ci sàllo wàllum biir réew mi. ki nga xam si moom moo di euh, Guy Marius Sagna daanaka léegi mu matal ñetti weer ci biir euh, kaso bi euh, loolu nag moo tax ba ak njabootam te ñu fekk baax fële ca Casamance génn nañ ci cell gi ñu nekkoon muy papaam di waajuram bu góor ay mag ak rakam ba ci ay xaritam ñoom ñëpp nee nañ kon Guy mari Sagna dañ ko jàpp ci lu ñu tegul fenn loolu nag moo tax ba askan wi nga xam si ñooy yeewoo ca dëkk bi mu gane àdduna moom Guy mari Sagna nee nañ jamono ji nu jëm dina yëngu yëngal ñu wax kon ci bésub tey di mercredi des cendres nek bëss bi nga xam ci suñu mbokk chrétien yi ci lañ ñuy tambali seen accord mu melni kon dina dem ba ñeen fukki euh, fan yo xam si danaka walum jaamu yalla mo ci daldi euh, ëpp tax tamit euh, fidèle yu bëree bëri danaka dañuy soppi xar kanam jappelé nak karem bi moy ñeen fukki fan yi jitu bëssu Pâques tagat yaram 8e de finale yi aller Ligue européenne des champions jàppale ni tey jii jongante yu am solo am na muy Real Madrid ak Manchester City Lyon ak Juventus de Turin Turin ñoom nag ñooy daal di laale démb Bayern ko moo daal di ah, fekki Chelsea dóor ko ñetti bal ci dara Naples ak eh, FC Barcelone ñoom dañoo témboo ku nekk benn bal nga dugal sa morom musique la ñuy jaxalee tënku xibaar yi ah, tey ak carême bi tàmbali ci suñu mbokk chrétien yi moo sabab ñu andi leen Fulgence Gakou ci woy bi mu duppee jàmbaar ñu teew mi ngi noonu mbokk yi lii tënk la woon ci ay xibaar yeneen tënku xibaar 8h30 lay doon léegi léegi Al Ndiaye kon mooy wéyal the morning king. oui disons la deuxième partie du monde.